bàyyi suñu lépp daara yi tarxiya ñu ngi bi yaakaar xanaa sant rek yàlla suñu borom mi nga xam ne moo jël xolu ñu baax ñëpp ak ñi nar am ndimbalal tey ak ëllëg ñu jublu sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa moom <clears throat> waaram yi nga xam ne ci lay liggéey lislaam la koor doon ci loo xamante ne dara ëpp ci doole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 ndax da koy bëgg ba mu gënal ko luy tax ba du yëg coono bi ndax nee na weeru koor yu mujj def ci tuubaa gi lu jiitu muy dem jëy sisin ci géej ak weeru koor yu mu njëkk def foofu ci géej kenn xamul mbooloo bi kenn xamul nu mu toll waaye weeru koor bi ci topp mbuur mu koor sax amu ko woon waaye bu ko amoon it amul ku mu ko jox li muy julli gisul kenn ci ginnaaw kon kooku dafa dafa al islam alalam la tey ji kon koor bokk ci euh, sëñ Muntaxa it doon koo xam ne euh, dafay yeesal di dundal dafa am ñaari baat yu ñu waxoon bi ñu soog a toog nit ñi ci bari nañ ko bàyyiwul xel waaye mooy programme am euh, nañu fexe xam sëriñ bi fexe dund sëriñ bi loolu nag muy wax noonu génnul lislaam génnul yoonu murit génnul pëstef loolu nag la xam ne boo ko waxee dongo yem ci boo moytu am na ñoo xam ne déglu nañu waxtaan wi waaye keroog lañ ko fàtte waaye daf koo wax mu noppi jël ñu nag di ñu ñoddi jëmale ñu ci ñaar yooyu gën a xam sëriñ bi ak gën a dund sëriñ bi moo tax programme yi muy teg moom sëriñ Mountakha jubluwu ci lu dul ñu bañ a am jot te xam ne àdduna mi ngi ñuy tegal ay programme yoo xam ne day mel nii yu mënta ñàkk la waaye fekk na li taxoon ñu bind ñu wàcce ñu fi mooy jaamu yàlla suñu borom kon programme mu lislaam daa war programme yoonu murid war a sarse waaw loolu moom mooy moom seen Muntaxa daf ko xam xam ne euh, lépp lu loo joxul lislaam àdduna dina la ko leb te bu la ko lebee du ko fay. <laughs> ñu mel ne tey jii nga xam ne mooy bisu Laylatul Qadr nga xam ñu ngi ci kër gi ci wàccaay wu màgg nga xam ne mbooleem doomu aadama yi fi nekkoon te dañ ñëw dolliwaat ci bisu wàccaay waaw Laylatul Qadr bi tamit bokk na ci bisi lislaam yi rek li ma wax rek ndax dundal ko ku nekkoon sa biir néeg di ko fa def baax na ku nekk sa penc di ko fa def baax na. waaye tamit doomi sëñ Tuubaa yi boo jëlee ku mel ne soxna May jàngal nañu di ko dundalandoo ci mbooloo ndax mbooloo dafa doon yërmande loolu tamit mu ngi am ci Tuubaa boo demee Daaru Karim fekk ko fa waaw boo kër sëñ Modou Fatick boo ñëwee tamit ci Tuubaa gi boo demee Mbusoobe ah kër sëñ Afe di nga fa fekk ñu koy dundal boo ñëwee fii kër yu mag yi yëpp Tuubaa boo demee dañuy dundal leetu xadar ci jàngu alquran yëkkati xasida ak def lu baax loolu kon l'islam mu dëkk ak Serigne Touba xam nga euh, sëñ Tuubaa bu ne laa yantahi lii nahyun aw wa'idu lii laylatul qadri nahaari haydu moom sëñ Tuubaa ni mu moomee lislaam noonu la doon lépp loo xamante alal lislaam la moo tax kon euh, tey jii mbooloo mii ñëw dañuy ànd ak sëñ Muntaxaa dundul ko tamit waaye nag euh, fépp fu kër sëñ Tuubaa am rek ci àdduna looloo fa war loolu moom dafay loo xam ne ku xool njàngaleem sëñ a xam ne fépp fu kër sëñ Tuubaa ne ab fu daara am dundal laytu xadar dañ ko fa war a def bi su kërin aw laxan loolu kon defe naa lu am solo la te laytu xadar ñu baax ñi di ko dàkk ci ay xeeti natt bu ne ak di ci déem a gis deg euh, yërmande suñu borom sëñ Tuubaa ñëw lu ñu ndimbal loo xamante ne ku ne xam ne ne ndimbal li nekk ci sëñ Tuubaa ci la ñu yaakaar ci leneen lu mu mën a doon kon donc sëriñ bi xam na ne lu suñu borom di nëbb da koy nëbb waaye euh, bu ko neexoon moom euh, secret yi gën a kawe ci lislaam moom sëñ Tuubaa ku ne xam na ne moom nëbbuwu ko moom xam na lépp euh, kon bu ñu juñ junjee ñu leetu xadar nañ ko natt ci bu weer wi feeñee bis sangam bis sangam moo doon leetu xadar bis sangam loolu da dafay wane rek ne alali lislaam yëpp daje na ci sëñ Tuubaa leen li ma ci tegit mooy sëñ Muntaxaa tey ji incha allah ndax ñu ci bëri sax yaakaaroon nañ ne fii ñuy jundalee weeru koor bi ci li kër Sëñ Tuubaa yi ñu def fi ay bâche def fi lépp defoon nañu fi ni ñuy defee leylatu xadar waaye leylatu xadar bi moom daaru minam lañ koy defee dañu ànd ak Sëñ Muntaxa dundal ko foofu nga xam ne kon ñun dañuy ñëw wéttali Sëñ Muntaxa dañu am tawfeex rek mu def ñu ay wéttalam doon wéttali sëriñ bi rek loolu yàlla moo koy defal jagle du du lu lu kenn di yeyoo du lu kenn di liggéey du kenn di mën a yëkkati loxoom ne lii moom euh, euh, mënu ma ko woon a ñàkk am dañ ko dimbalee rek loolu nag ñu ciy sant sëriñ bi te xam ne moom moo jël Hizbut def ko muy alalam euh, moo ko moom moo taxit fu mu nekk ñu di ko fa wetti loolu nag ñuy ñaan yàlla suñu borom euh, yàggal ko fi lool ñu yàgg ko ànd ak moom te di ko dundalee noo xamante ne dina dëppoog li mu bëgg ndax sëriñ bi moom dara ñor ko lu dul lislaam ak pësteef akuk taalibe yii daal moom mooy sunu alal mooy sunu ndono mooy sunu lépp nañ koy kenn ku ci ne la ca lam ca yor na ca góorgóorlu la sëñ Modou waa waxoon dong bi ko waxoon ne ko Mbàkke dama laay yërëm ci yan wi euh, mu ne ko mu ne ko bu fekkee yërëm nga ma gàddul ma li ci aju ci yow rek yow nga mel ni nga war a mel ndax ginnaaw yow bokk nga ci ñi ma war a sàmm boo melee di nga war a mel man wàññi ko ne ci sama sas kon loolu mooy liggéey bi loolu moom moom moom moom sëñ Mountakha defaru defaru dongay rek ko ñor kon nañ ci góorgóorlu jërëjëf